nan tàgg Ahmadul Lamin moom la nu may surul masuun xar baax la feese ba ni góoj baay daa ko rabbal alamin mahalamin walamin wan xadaasi walamin li tartaali loolu nag li ko waral sa waajur génn ci yow génnoo ci ndax ba mu xam ne ko ba léegi Cheikh njaay mii mat mat na ci firnde sëñ bi dong laa xamoon moom dong laa gëmoon moom dong laa toppoon man naa ni ginnaaw yàlla ak yéenay président Macky Sall topp gu ma topp sëñ bi moo may lii tey ma toog di wax ak yow waaw wax bi nag bi ci jiitu mooy bu doonub donga dong du fi ñëw dañoo dem a dem ba yàlla mi dara tewul ci yéenay président Macky Sall ak ñaanu sa waajur ma nekk ministre ñu war a ñëw fii président yabal ma fi loolu itam jàngkat tubaab bi xam nañ lu mu tudd mooy symbolique symbolique mooy lu màndargaw sama ñëw fii tey symbolique la ndax boo xoolee fañ jóge ba ñëw fii am na lu muy wone ma ñëw toog sa wet mu wone leneen jooy nañ ba ma tudd rangoñ ndax leenu ñàkk te duñ ko bàyyi di jooy jooy yi nag terewul xel yëpp dal te xel yi li ko dalal nun xam na bu baax ki dem jëm jaa dem waaye li ma defoon nag li mu yéene woon ak li mu bëggan ëllëg dara jógu fi te léppay am te li njëkk a màndargan day am mooy sa jëmm ci ñu xaman sëñ bi ñëpp bu ñu la xoolee ci jëm seen yaram day daw ndax daa mel ni moo toogaat bi ci kanam te li ma wér mooy demul te waajul li war a waaj lépp te ñe mu gën a waajal ci nga bokk waaw li ma wér mooy la mu doon liggéey yéene woon ko te yéeneem jeex mission jeex ci àddina la koy motti di ko wéy la ëllëg ci jamono ji yow la te loolu bu ñu demee ba ci kanam dina leer ñëpp ndax lu jëmm ji dong ji jaa ngi fi jàng waa ngi fi yar bi mu la yar mi ngi ci ndax yar na la ba nu nga war a mel nga ni yar na la ci muñ yar na la ci gore yar na la ci gëm seen borom yar na la ci nangu li la war ñeent yooyu nag bu la ci bu yaree ñëpp war nañoo mën yaakaar ni li la war man nga ko ba tax na tey bu jamono doxee dox ba nga nekk fii sëñ Sidi Moxtaar sëñ Baara te yàlla mën na cee dolli leneen loolu tam beneen firnde la ndax yàlla moom du juum te du jox lu mérité wu donc li nga doon da ngaa nekk sa ginnaaw bàyyi ba mu dab la man li ma ñemewoon sëñ bi yow ñi ma wokkoon ci moom lu ci bëree bëri boo ko mosaan bëgg a wax sëñ bi man mi ngi ko wax nga wax ko ndax ñi ma wokkoon wax toog ak sëñ bi ànd ak sa sago mosuma gis nga def ko lu bëri yaa ngi koy def tey bi sëñ bi nekkee ñi ko Cheikh Ndiaye mi doy na ma ci firnde waaye président moom yaakaar naa ni yéene ji mu yéene suñu borom a ngi koy bëgg teg ci yoon moom ko amee ndax man musuma politique militaire la dib murit keroog dama ko ni sama fal gi yaaj xam sa ndàngam tànk waaye boo doon xool yoon rek doo ma fal waaye mu ni moom loolu yëpp neexu ko ci ginnaaw moom am na yaakaar ci man te sëñ bi ànd na ci dana ko def te loolu yépp xam nañ ko te kenn nëppatoo ko ci ndax man nee naa leen wër naa àdduna ba mu daj gisaguma ñaar gisaguma lu féete kaw lu féete kaw sëñ Tuubaa gisaguma ko gëni mbokkam moo tax maa ngi doon murit ànd ak samay mbokk yàlla def tawféexal na ma nag ma doonee murit ba pare seen mbokk ndax sama nijaay ak xam nga te nag nga ko yaa ngi koy doxal waaw boo boolee say mbokk ak say xarit da nga fay wax loolu lu wax bis bu ne ak fu ne wala loo musta wax te li nu dajale tey bokk na ci indi naa siyaare président indi naam nuyóom indi naam yaakaaram indi naag doylu la indi naam ñaan la teg ko ci sa loxo mu ngi mel ni teg na ko ci loxo ki fi jóge teg ko ci loxo waa kër sëñ Baara gépp ndax démb ba léegi maa ngi wër kër sëñ Baara gu ne taxaw naa def naa xal ma fara def ba ñu nooyee kaay dem jox ma kayit man leen kayit bu matul du ma dem na ngeen ci bind ñi ngeen ci war a bind lépp jox ma yi fi ku ne ma yóbbu loolu laa def waaw donc man président mi ngi lay sant di la gërëm di la doyloo ndax xam na lu tax mu doyloo la xam na lu sa waajur lu mu ko defal te lu ko waajuroo mënal lu mu ko defaloon mënal nga ko bu ma toogee fii sa wax di jarbaat di wax nii yaa tax wax ji nag ak jub gi rafet gi buy amee ñuy bett ñëpp la bett waaye yow bett ndax am na loo ci xam euh, donc président ne mi ngi lii ñuy mi ngi ànd ak yow naqar wi d'abord ndax naqar wee tax xëy na xew yi demee nii waaye ki fi jóge moom mën nañ koo naqarlu mën nañ koo jooy waaye mën nañu dalal suñu xel ndax li ma leer mooy ni ma ne woon kanamam na mu nar a mën a ginnaaw ma këpp te tàmbali na ko wone ci këm ni fi bàyyil ak ni nit ñi booloo ànd ak moom te tey jii sëñ bi na leen leer ni cofeel gu nit ñi aman ngëm guñ amoon bëgg guñ aman ci sëñ bi da ci jot <coughs> bu fekkee ni taxaw nga ak ñoom ni nga war a taxaw te man wóor na ma di nga taxaw ak ñoom ndax sëñ bi waajal na la ci loolu ba pare teg sa wet Cheikh Ndiaye kooku moom nanguwuma ko wax ndax sëñ Baye Cheikh Ndiaye nee naa ko dangaa sacrifice àddina yëpp jox ko sëñ bi man damaa jàng ba micc yow taloo woon jàng yaa ngi ci bi rek nangul ko lépp yaa ci njëkk yàlla na fay loolu te dina la ko fay loolu moom sëñ ma ko bañ ak sëñ Cheikh nga xam ni no benn lal xam ngeen xam ak ngatan xam ngeen nu ngatan ma noo bokkoon nu ngatan ci karale ñeenti at bañ jëlee ma ci daara ji yóbbu mu école saa bu naree xaajaloo rek am lu mu boolewaat sëñ bi moo ñu boolewaat donc li ma war a wax bëgg koo wax su ma ko bëggee wax fii la ni fanaan yendu fi sëñ bi daal na nga xam ni man lu ma doon lu ne sa waajur a tax te yaay sa waajur président Macky Sall mi fi yónni danoo bokk génération 1982 lan ànd ñëw université mu gëm politique di politique mu gëm jàng di jàng ba ku nekk defal suñu borom la ko gënal ndax kuy politique yaakaar naa nekk président moo la gënal kuy jàngit nekk professeur moom mu ne sa ko weesu moom mu nekk président la bi mu nekk professeur yàlla dem ba boole ñu liggéey boobu ma indiwaat ko tey jii waxee la ko nii defe ko nii loolu itam mandargam suñu borom la waaw. yaa ngi lay nuyu. yaag délégation bi nga àndal. yaag délégation bi nga àndal. te président Macky Sall yónni leen te président Macky Sall yónni leen fi. monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue bokk ci. monsieur le ak le préfet di Kébémer ma Diop Ka. ak Mamadou su préfet bu Daaru Musti ak chef de service yi ànd yëpp. ak chef de service yi ànd yëpp. Serigne Moustapha di wax wa aleykum salaam. Serigne Moustapha di wax wa aleykum salaam. ak rakkam yu baax yi. Serigne Sidi Mbacké. Serigne xam nga xam ne mooy coordonné màggal gi. ak sëriñ Basirou Mbacke. ak sëriñ Basirou Mbacke. xalifa sëriñ Moustapha Finance. ak ñi fi fekk yëpp ak ñëpp ak sëriñ seex Ndiaye mii. ak directeur de cabinet seex Dieng. ak El Hadj Birane ak ñu fi nekk yëpp. di am mbégte te dalal leen ci di te dalal leen. ak Serigne Cheikh Bara Modou Aïssa. ak ak sëriñ Serigne Modou Aïssa ak mbooleem njaboot gi di am mbégte ci ñëw gi li eh, ko waral mu demee nii itam li ko waral mu demee nii itam junj nga ko dañoo nekk ci fan yi ñeent fukki guddi sëriñ bi dañoo nekk ci fan yi ñeent guddi sëriñ bi nga xam ni eh, loolu mënuñoo am lu ko gën a diis nga xam ni loolu mënuñoo am lu ko gën a diis mënuñoo am itam lu ko gën rëy mënuñoo am lu gën a màgg. mënuñoo am itam lu ko gën a màgg. moo tax bi Cheikh Moustapha waxee ak njaboot gi. moo tax bi Cheikh Moustapha waxee ak njaboot gi. ñoom ñëpp ñu rafetlu ko. ñoom ñëpp ñu rafet lu ko. ni li gënoon. li gënoon. saa su saa su accès. saa su accès. ànd ak gouverneur. ànd ak gouverneur. ñu bokk waxtaan. ñu bokk waxtaan. su ko defee ñu yendoo màggal gi. bu ko defee ñu yendoo màggal gi. yendoo ñaanal sëriñ bi. yendoo ñaanal sëriñ bi. fanaane ko. fanaane ko. ba suba. ba suba. ñëpp yeewee ko. Eh, Cheikh Moustapha mii nag li nga ci wax. Cheikh Moustapha mii nag li nga ci wax. yaakaar naa ni amul benn at buñ mas a màggal. yaakaar naa ni amul benn at bu buñ mas a màggal. ñuy def cérémonie officielle. ñuy def cérémonie officielle. te waxuma ci moom lii nga wax. te waxuma ci moom lii nga wax. ci gàttal rek lii nga wax ne ku ko xool sa xel dem ci Cheikh Sidil Muxtaar. ci gàttal rek ku ko eh, lii nga wax ne ku ko xool sa xel dem ci Cheikh Sidil Muxtaar. ndax seenu ni leen yàlla boole ak jëmm. ndax ni leen yàlla boolee jëmm. ñu niroo ñu nuroo. baatin bi noonu la mel. baatin bi tim noonu la mel. ndax sëriñ bi wax naa fii daaw. ndax sëriñ bi wax naa fii daaw. ci cérémonie bi. ci cérémonie bi. ni sëriñ bi moo ñu ko tànnal. ni sëriñ bi moo ñu ko tànnal. Euh, ni na jiite kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. nee na jiite kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. ba ma koy wax lii taxoon. ba mu koy wax lii moo taxoon. tey moo taxoon. tey moo taxoon. te lu mat a def ci moom. te lu mat a def ci moom. ci jikko ci jikko. ci yar ci yar. ci ci ci teggin. ci teggin. def na ko ci moom. def na ko ci moom. kon ñu dalal xel ci moom. kon kun dalal xel ci moom la. ñu dalal xel ci moom. kon ñu dalal xel ci moom. te xam ne dara jógu fi. te xam ne dara jógu fi. sëñ Baara it kenn wu ko. sëñ Baara itam kenn umpale wu ko. yàlla mayoon. li yàlla mayoon. ci ci baatin. adduna bépp ko nangu. adduna bépp ko nangu. Cheikh Sidi Mokhtar itam. Cheikh Sidi Mokhtar itam. loolee. loolee. dafa fulu woon ci moom. dafa fulu woon woon ci moom. da ko fee bàyyi. lépp mi ngi mi. kon ñu dalal xel yi bu baax. monsieur le ministre. monsieur le ministre. Serigne Moustapha da lay yóbbante ay cant. ci président Macky di ko tàmbalee ci ñi nekkal. di ko tàmbalee ci ñii ñu nekkal. muy sous préfet. muy di préfet. ak gouverneur. Aliou Badara Mbeng moom day wax ni moom day wax ni màggal gi mooy seen ñetti màggal gu gi mooy seen ñetti màggal gu ñëwee fii. waaye bu yëpp. waaye bu fekkoon ne régions yëpp. mel nañu ni région de Louga. mel na ni région Louga. ci gouverneur Alioune Badara Mbengue. ci gouverneur Alioune Badara Mbengue. préfet département ci su département Kébémer. ci préfet arrondissement Darou Mousty. ci sous préfet bu arrondissement Darou Mousty. kon su président tëddee say ba mu nelaw. su ñëpp meloon nit ñi. kon bu tëddee moom président say ba mu nelaw. gouverneur Alioune Badara Mbengue rawatina nag gouverneur Alioune Badara Mbengue. nit la koo xam ni. nit la koo xam ni. ku xam na ni région de kon ne xam na ni reson de Louga. ak Thiès ak Thiès ak Diourbel. bokk na ci région yi gën a jafe. bokk na ci région yi gën a jafe. waaye ak matam. waaye ak matam. ak fulaam ak fulaam. ak ak ràññeetam. ak sagoom ak sagoom. tax na. tax na dara du fi yàqu ndax taxawaayam bu baax te loolu moo wàcc ba ci suuf màggal gi itam bi fi seex Sidil Muxtaar nekkee lan daa def lépp ci màggal gi ak nan ko daa jëfee dara manqué wu ci lépp la ñu def kon nag mi ngi yóbbantey cant di la ko seedeel ci jëm yi toog moom itam mu koy sant ndax xam na ni mu jàppee woon sëriñ bi na fi mu ko tegoon. xam na fi mu ko tegoon. xam na ni mu ko gëmee woon. xam na ni mu ko gëmee woon. xam daa jàppale. ci liggéey dara umpuñu ci. ci. am na yoo xam ni am na yoo xam ne. mënees na ko wax ci kaw. mënees na wax ci am na yoo xam ne. am na yoo xam ne. kenn mënu ko wax ci kaw. kenn mënu ko wax ci kaw. ndax kañ ko daan defal. ndax kañ ko daa defal. nitug sutura la. nitug sutura la. moom mi ko doon def. moom mi ko doon def. nitug sutura la nitug sutura la. waaye li ko Cheikh Moustapha di wax. fu ko sëñ bi tegoon. fu ko ko jàppee moom mii nga xam ni moom mii nga xam ni. tey moo yilif kër Cheikh Mouhamadou tey moo yilif kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. noonu la ko fas yéene jàppee noonu la ko fas yéene jàppee. ci xelal ko ci xelal ko. ci ñaanal ko ci ñaanal ko. fànn yëpp ak fànn yëpp. kon nag na dalal xelam. la ko sëñ bi doon ñaanal. la sëñ bi daa ñaanal. te xam ne ñaanuk sëriñ Touba. te xam ne ñaanuk sëriñ Touba. day sarale. day sarale. da ko doon ñaanal ni ko. da ko daa ñaanal ni ko. ndimbalul yàlla laa lay ñaanal. ndimbalul yàlla laa lay ñaanal. ndimbalul yàlla soo ko amee. ndimbalul yàlla soo ko amee. loo song. loo song. di nga ko daaneel da nga ko daaneel. loola song. loola song. daanu dana daanu. kon nag kon nag mi ngi koy ñaanal loolu mi ngi koy ñaanal loolu. te di ko xamal ni. te di ko xamal tey moom mii. tey moom mii. moo nekk ci bopp. moo nekk ci bopp. njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. sëñ Baara. ku ne xam ne Touba la gane àdduna. ku ne xam ne Touba la gane àdduna. waaye Mbacke Kajoor gi waaye Mbacke Kajoor gii. 1913. 1913. ci la ko Cheikhul Khadim. ci la ko Cheikhul Khadim. digaloon mu ñëw fi. digaloon mu ñëw fi. sanc fi sanc fi. kon fii mooy ab cëram. kon fii mooy ab cëram. am na yu fi sëñ bi nisaroon. am na yu fi sëñ bi nisaroon. am na yu ñu fi nisaroon nisoroon daaw tàmbali ko. monsieur le gouverneur xam na ko. monsieur le gouverneur xam na ko. préfet xam xam na ko. nattoon nañ fi juróom-ñaari kilomètres. waroon koo def tàmbali ci ci ci ci ci euh, ci euh, bi. ñu koy ñaan. sëriñ bi sëriñ bi. musul ñaan dara. musul ñaan dara. lu jëm ci boppam. lu jëm ci boppam. lu mas a wax. lu mas a wax. njaboot gee tax njaboot gee tax. lu mas a ñaan. lu mas a ñaan. njaboot gee tax njaboot gee tax. njaboot gi nag duñ fi jóg. njaboot gi nag duñ fi jóg. te mi ngi ci loxoom. te mi ngi ci loxoom. sàkku ci moom. kon ñuy sàkku ci moom. loolee lépp mu wéyal ko kon ñi ngi sant bu baax kon ñi ngi sant bu baax di gërëm yow nag yow nag dañuy sant yàlla ci yow dañuy sant yàlla ci yow ndax koo xam ne juróom fukki at juróom fukki at leen tàqale ko sëriñ bi. tàqale wu ko nag sëriñ bi. tàqale woo ko ak Cheikh Moustapha. ñun ni nga ko waxee. ñun ni nga ko waxee. ñoo bokkoon nekk ay tuut tànk. di fa fawum xele. di fa fawum xele. ba yàlla def lii tey. ba yàlla def lii tey. kon cër bi la président Macky Sall jox. kon cër bi la président Macky Sall jox. du cërub kër aale. du cërub kër aale. waaye cërub sëñ Touba la. waaye cërub sëñ Touba la. cërub Cheikh Sidi Mokhtar la. cëru njabootu seex Mouhamadou Lamine. cëru njabootu seex Mouhamadou Lamine Baara la. cëru njabootu maam Cheikh Awa Balla. jëru cëru njabootu maam Cheikh Awa Balla la. ndax maam Thierno nga tudd. ndax maam Thierno nga tudd. tey mooy Cheikh Awa te mooy Cheikh Awa Balla tey. cër boobu. xam nañ ko. ñun la ko président dénk. ñun la ko président dénk. ñun la ko sédd. kon nag gën a góorgóorlu rek a góorgóorlu rek. ba tax ko dara. ba tax gis ñu def ko dara. dafa am lu tax. te yoon woowee. te yoon woowee. yaa ngi ci yàlla kon ñu ñaan yàlla rek. mu boole ñu dimbali mu boole ñu dimbali. Eh, gis nañ itam gis na ni itam. lépp lu ma si lu ma si séddale. ci ay cër ci ay cër. moom président Macky Sall moom président Macky Sall. sédd na ko Cheikh Sidil Mokhtar sédd na ko Cheikh Sidil Mokhtar. au conseil bi mu doon def. au bi ñeent yi jël ci Touba. ci yëpp ci Touba. sëriñ bi la yëpp njabootu sëriñ bi la. doomam doomam. jarbaatam jarbaatam. sëtam sëtam. ak taalibeem ak taalibeem. muy sëñ Sidi Mbacke. muy sëñ Sidi Mokhtar Mbacke. di di di Basirou Diakhaté. di Basirou Diakhaté. di Amadou Fall. di Amadou Fall. di Matar Diop. ci biir këram lan nekk. boo ko koo joxul cër. loolu nag bu ko joxul woon cër. koo joxul cër. koo joxul cër. joxo bàyyiwoo ko xel. bàyyiwoo ko xel. doo ko sédd loolu sédd loolu. te gis nañ leneen lu mën di doon itam. te gis nañ leneen lu man di doon itam. noonu lay demee noonu lay kon nag ñu ngi sant Serigne Touba. nga xam ne lu yëngutu. nga xam ne lu yëngutu. yëngutu ci Serigne Touba. yëngutu ci Serigne Touba. ab yëngutoo ma. moo ko moom moo ko moom. la ca des itam la ca des itam. njabatug Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gi. lam ca war a wax lam ca war a wax. wax na ko wax na ko. lam ca war a xamle. lam ca war a xamle. xamle na ko xamle na ko. yoon wi Serigne bi xàlloon. yoon wi Serigne bi xàlloon. muy suñu jàmbaar ji muy suñu jàmbaar ji. di Cheikh Sidil Muxtaar. ku nekk ku ko ni jàkk. gis ku yaru nitu yàlla ku ko ragal. ku ko ragal. gëm ko gëm ko. jeex tàkk ci moom tàkk ci moom. nekk murid saadix nekk murid saadix. kenn mësu koo dégg. kenn mësu koo dégg. ci leneen. ci leneen. mu cay yëngatu. mu cay yëngatu. mbaa mu cay wax. wa mbaa mu cay wax. mbaa mu cay def. mbaa mu cay def. mbaa mu cay dindi. mbaa mu cay dindi. lu dul lu amal nit ñi njariñ. lu dul lu amal nit ñi njariñ. te mooy ndigalul seexul xaddim. te mooy ndigalul seexul xaddim. moom itam yoon woowee. ca la ko waajuram teg. mu fas ci yéene ànd ak waa jamono mu was cee ànd ak njaboot mu was cee fas ca yéene ànd ak njaboot gi. te du ko wàcc mukk ndax kër Cheikh moo leen baara ndax kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. bu njëkkoon bu njëkkoon. mën naa ni doomi sëñ baara yi sax. mën naa nit ñi xamuñu leen. nit ñi xamuñu leen. ndax seenu dëddu àddina. ndax seenu dëddu àddina. ak ñàkk caa am soxla. ak ñàkk caa am soxla. mosuñu weesu seen i tool. mosuñu weesu seen i tool. bay bay jàngale jàngale. tarbiya tarbiya. ñun ñoo dee xale rek ñëw ñun ñoo xale rek ñëw. ñu jox ñu mbir yi ñu jox ñu mbir yi. ñuy def yëfi jamono ñuy def yëfi jamono. bañ ràññit leen yëg leen. kon nag mu nekk këru teggin. kon nag mu nekk këru teggin. moom kër Seex Mouhamadou Lamine Baara. di këru sutura. di këru sutura. di këru xam-xam. di këru xam-xam. waaye di këru baatin. waaye di këru baatin. kon nag yoon woowu. kon nag wo yoon woowu. moom lay seedeel ñëpp. moom lay seedeel ñëpp. fasu ko yéene wàcc. fasu ko yéene wàcc. te fas na yéene ñëpp aw ci. te fas na yéene ñëpp aw ci. tënku ci ak kilifteef tënku ci ak kilifteef itam. nangu ko itam nangu ko itam. incha allah ndax yonent yàlla yaxya. bi ko yàlla yónni. daf ko ni yaa ni ko yaa Yaxya. xusil kitaaba. xusil kitaaba. bi quwwa bi quwwa. na nga jël lii. na nga jël li ci pas-pas. ci pas ak gëm-gëm. ak gëm-gëm. te def na ko. te def na ko. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee. yàlla dafa wax ci alxuraan ni. yàlla dafa wax ci alxuraan ni. amana. amana. arrasulu. arrasulu. bima. bima. unsila. unsila. ilayhi. wal muminina. wal muminina. kullun. kullun. amana. amana yàlla bi ko yàlla yonent bi ko yàlla yónnee. bi ko yàlla yónnee. daa gëm moom ni ab daa gëm ni moom ab yonent la. koo mën a nu soog koo mën a gëm. kon nag yéen ngeen dalal seen xel. kon nag yéen ngeen dalal seen xel. Cheikh Moustapha itam xam ni Cheikh Moustapha itam. foofa rek la ne. gëm na moom gëm na ni. tey tey moo nekk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. kon nag monsieur le ministre. mbir maa ngi noonu mbir maa ngi noonu. kon dañoo nekk ci ñeent fukki guddi yi. kon dañoo nekk ci ñeent fukki guddi yi. ñu gàttal ko foofu rek ñu gàttal ko jërëjëf nan tàgg Ahmadul Amin moom la nu may surul masuun xar baax la feese ba ni góoj